yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube bëggee jot suñuy publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te leen fàtte laal cloche Jokkalante kayit yi mooy màndargal xaatim déggoo bi lëkkale lekku fii di yëngu ci mbay ak distribution ak bu Tarqiyyah tey alxemes fukki fan ak juróom benn weeru mai atum 2024. kontaan nañ tey ci sunu daje bi. nga xam ne daje bi dafa war a tënk sunu lëkkaloo mooy convention bi ñu doon signé tey pour am yaakaar ànd liggéeyal Sénégal liggéeyal Touba liggéeyal communauté mouridisme euh, lekku fii bi ma ñëw fii taxawal dafa nekk société boo xam ne dafay yëngatu ci mbay agriculture intensive sous serre du yëngatu ci formation ba pare comme dañu ne consommer local moo tax ñu tudde lekku fii waaye wax rek consommer local amul njariñ li ëpp njariñ mooy il faut produire local d'abord avant de consommer. ci lu ko soxal ginnaaw bi mu rafetloo jotaay bi ak li ko sabab jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah di Serigne Youssouf Diop dikkaat na ci taxawaay bi nga xam ne daara ji am na ko naka jekk ci wàllum communication wàllum mbay ba ci càmm gi loolu yëpp nag ñu laytaayee ko jaamu yàlla ak liggéey. Euh, ñun Hizbut Tarqiyyah mi ngi ci éducation mi ngi ci agriculture mi ngi ci élevage mi ngi ci domaine yu bëri loolu nag su fekkente ni yéen da di liggéey ci secteur distribution ñu ñuy liggéey ci production lëkkaloo pour mu doon loo xamante ne dañuy fexe ba qualité feeñ ci. li ñu tuddee préférence nationale loolu kon dafay objectif boo xam ne suñ ci jàppalantee mën naa baax loolu moo waral ñu tàmbali loo xam ne euh, yaakaar naa ne waxuma la Touba waaye Sénégal gépp dina leen amal njëriñ ñuy ñaan nag suñu borom barkeel li nga xam ne mooy partenariat bi ñu signé te euh, bu ko barkelee rek liñ ci bëgg dinañ ko mën a am incha allah mu doon njëriñal ñëpp. ñaari pàcc yi nag di lekku fii ak xisbu tarxiya am nañ yaakaar ci ne xaatim déggoo bile ab tàmbali lay doon ndax mëmet yi gën naa jëm ci dooleel mbay mi ak it lëpp loo xam ne da koy soppi ñu mën koo jëfandikoo itam ibbi ay magasin ci gox yu wuute biir Sénégal ngir jëmmal dëgg-dëgg lii ñuy duppee bay dundee ubbi yaatal moo ñu fi indi ba tax na ñun du lépp la ñuy def parce que bu ñu nee consommer local lekku fi di di nekk ci gàncax ñay defar araw ñay defar cere ñay defar caakiri loolu yëpp consommer local la waaye lekku fi yemul si loolu dane comme ñun yaakaar ñu keneen ku dul yàlla ak sunu ñax ak sunu doole nañu defar sunuy supermarché ba tépp produit boo xam ne fii la jóge ñu am fu ñu koy jégaat fu ñu koy jaayee pour yombal ko aussi ñu koy liggéey muy baykat muy sàmmkat muy nappkat muy femme transformatrice